صلى عليك الله يا خير الورى باعداد حبات الرمال وأثرى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bokk jullit ñi xam ngeen ni ñu ngi ci weeru koor muy weer wu tedd di weeru alquraan chahru ramadan alladi unzila fihi alquran na ci weeru koor la wàcce alquranul karim wàcce bi nag bul jàpp ni ci la ko wàcce ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet ci jublu mooy ci la ko wàcce mu jóge ci lawxul mahfuuz ñëw ci baytul izza ndax alquran ñetti wàccuwaay la am wàccuwaay bu njëkk bi mooy minallaahi ila lawxil mahfuud beneen bi mooy wàcc bim mu ci ca lawxul mahfuud ñëw ci baytul izza muy asamaan boo xam ni jege na suuf loolu nag moo nekk ci weeru koor moo tax yàlla ni inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka wàcce naa ko ci guddi gu tedd mooy guddi gu laylatul mu gën koo leeralaat ni inna anzalnaahu fi laylati alqadr wa ma adraka ma laylatu alqadr kon chahru ramadan alladi unzila fihi alquran mooy weeru koor la ko yàlla wàcce mu jóge lawxul mahfuz ñëw ci baytul izza kon nañu gën a góorgóorlu ci alquran ci njàng ko bu baax a baax ak di ko nafar ak di ko settantal di ko jàng di ko déglu encore ci ñeneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom la alquran wàcc waaye toog na bis mu ne Abdullahi ibnu Mas'ud jàngal ma alquran ma dégg lan masu nee na lool dis ci moom lool mu ni ko ndax dama la koy jàngal te ci yow la ko yàlla wàcce yàlla yonent bi ne ko dama ci dama bëgg a euh, dégg alquran ci beneen làmmiñ Abdullahi ibnu Mas'ud nee na mu tàmbali jàng sooratu Nisaa yaa ayyuhan naasu ttaqu rabbakum di jàng di jàng di jàng ba egsi ci fa yàlla di wax naan fa kayfa ida jinaa min kulli ummatin bi shahidin wa jinaa bika ala haulaai shahida yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko doy na doy na Abdullah ibn Mas'ud nee na bi ma bi ma yëkkatee sama bopp maa ngi gis rangooñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di xebe ba bi di sotti loolu mooy wane jeexantal bi muy am ci alquranul karim jullit bi tamit nag war naa jéem a góorgóorlu ba jege foofu même bu ca àggul ci yittewoo alquran ci di ko jàng rawatina jamono ji nga xam ni ñépp nee nañ leen restez chez vous toog leen ci seen kër yi am jot gu mat sëkk gën a mën a nafaraat alquraanul karim kon loolu laa leen di sant wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu صل عليك الله يا خير الورى بعدد حبات الرمال وأثرى صلى عليك الله ما غيث هبا